Senegal Sall nga yëkku ca kaw Macky Sall nga naan orwaar Dakar Times naan man Sall ngay quitté moom président Macky Sall ngay tàggoo ma ngay dem yéen kaay bi naan man waaye bul juum ca Union africaine laay waxee turbine yéen kaay mel ni ku naan kontas yaakaar baaxul waaye troisième mandat ko fii aaye parti socialiste moo ko xamle yéen kaay bi dee média bi naan man bu ñii di sar xoole ci biir parti bi naan président Macky Sall mooy sunu candidat amuñu beneen plan ñeneen ci biir parti bi ña nga naan Sall na ablé la sénégalais yi wóolu woon ko jox ko jeex na na dem Italie ci boppam gaay nekk ci parti socialiste naan président Macky Sall bëggatuñ ko ñaari mandat la diggee woon ak sénégalais jox nañu ko ko na dem l'évidence yéen kaay naan man saa si tembe day ku ko fi wutal ñetteel bi mandat sànku laaj leen Aliou Sow ma nga xam ne ay rappeur ak acteur culturel la jëloon ngir nag ñu daal di àddu ci ñetteel bi mandat bu président Macky Sall bi gaa ci boppam dañ koo tuutal la mu diggee woon a tuut wala it gaayee ko dégluwul moom Aliou ci boppam ndam la ca mujjuta am tribune Ababacar Sall moom it ma ngay talal de jëm fan yéene kaay bi naan man ci présidentielle 2024 bi moom xaaf ma nga cib tournée boo xam ne daal di nay sàkku nag faf ñu daal di koy dindi ci yeewi askan wi poste ba mu fa jiite woon di njiital conférence des leaders xaaf ne na dañ nekk cib tournée yéene kaay bi naan man ma ngay sori Ousmane Sonko moom ba Ababacar Sall di xàllal boppam yoon ndax am na yaqiin ne xaaf candidat lay doon ci réew mi du deñ l'indépendant yéene kaay naan man président Macky Sall nee na candidat kon di jël siis Sall nag kaay ma yedd la gis nga boo bëggul tàbbi ci taarix daal di bàyyi ba mu jotee ca sën ya mujjee àddina bi day bari nay borom xam-xam waaye ay homme d'état ci boppam la manqué fexeel ba bokk ci ñiy dippee homme d'état président Macky Sall te nag mënta jaar fenn lu dul bàyyi te wiccaxuñu sax loxo ci ndap li nee ñu politique mooy l'art de gérer la cité président maki Sall ma ni la politique mooy bàyyi ca waxtoom bul xaar sénégalais yi naan lan ñu demal demal Sall ku la waxul da lay nax demal gis nga benn benn yi nga xam ne ñoo ànd ak yow te la jey naan président Macky Sall mën na ne naan dañuy weñ sa loxo di la defub candidat bés buy metti ci sa côté dañuy daw làqu ji sàll bàyyil boo bàyyee day dugg ci taarix te boo bàyyee tàbbiwaat ci xolu sénégalais yi gis nga ŋàññi giñ lay ŋàññi bés boo bàyyee ëllëg xam ni sénégalais yi bañuñu la sàll bàyyil xool coow la coow la nag professeur naan ak anam nag ba ngay bàyyee fexeel ba booy bàyyi réew mi yow président Macky sàll bul ko bàyyee ci nii mu nekkee ndax saa si tembe ñi ngi jëmbat loo xam ne bés bu ñu ko tàggatee ba mu màgg ci réew mi du baax sàll dàqal mu jëm géej ŋàññante waxante yu bon yi dàq dàq ko yow président Macky Sall transhumance na fi jógee lu waay sañ wala neex wax ci réew mi na fi dak saa si tembe nag politique ci boppam mooy utukaayu xaalis tayel yi masuñoo liggéey ba am ca lenn lu dul ci politique la ñuy langaamu ngir amus lëf wala it tekki-tekki goo xam ni day gaaw lool preuve baa ngi nii saabu élection jub see ci réew mi génn nag mafia daal di juddu goo xam ne nee ñooy ay intellectuel lan yenn ci nit yu ñuy wooye ay marabu di mbubboo seeni tur xibaar yoo xam ne dañuy nekk politicien déguisé ay fonctionnaire bu administration bi ku ci nekk nag ba élection se nga tàmbali tëgg sab combine combine boo xam ni doo ko def fudul ci ndoddu sénégalais yi nga xam ne ay ñaani bañ lanu Sud Quotidien naan man en tout cas gauche ba moom ma ngay waajal fas yéene nag lonkoo ci seenu biir ngir am benn candidat bés bi le jour naan man gauche bi day ma ngay tëñ-tëñ di xool yoonam fas yéene nag AFP parti socialiste LD ak PIT nag xool ci genn yoon Absar LD debout ne buñ leen nax de saa si tembe day diversion lañ bëgg ngir xàllal yoon nag président Macky Sall moom Sall Walf Quotidien naan man saa si tembe day ci ñàqu askan wi lay daal di profitoo nag ngir bëgg leen neexal am beneen mandat ci réew mi yéene kaay bi naan man nee na ma ngay wàññi location nee na ma ngay yokki salaire lépp rek ngir daal di neexle moo ku coy loru ku dul góorgóorlu tribune yéene kaay naan man coow li coow li mooy tay day buñ ci waxul ay trouble nag dina am diggante Ndakaaru ak banlieue Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang tey lañ koy atte libération yéene kaay ne ma dossier bi tey daañu ko plaider Ousmane Sonko xamle na dina dem tribunal ni ki tey Ousmane Sonko ngay woote sénégalais yi fekk ko fa te naan tappale bi ci boppam mooy dakk ndax nag bu dee ci lii lañu yaakaar ngir tere maa doon candidat ci réew mi dey ñu ngi nax seen bopp te bépp magistrat boo xam ne laale nga ci mbir mii Ousmane naan sa ëllëg dina metti ci réew mi de Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse naan kon Sonko may ñu soo yëngale yaag say gaay ñu dal sa kaw Bamba Fall naan la amoon Touba du am Ndakaaru Ousmane Sonko naan Maham Diallo yow laay waxal bii jeex nañu war a entamer beneen ci koor gi sénégalais yi lu ñu woor woor fas yéene dal seen kaw attention diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang day takk der yi muy sandarme di policier saa si tembe day ñi ngi waajal xeex bi Sonko naan leen ci vox populi saa tembe day toll naa foo xam ne ni mënatumaa wàññiku ku ñu ko nokkos nag ñu sabañ la ko président Macky Sall na xam leen saa tembe songoog moo ma fi des ci loolu la ñu fas yéene soobu l'observateur naan ma ne Ousmane Sonko dañ koy surveiller coow la nag daal di judd ci surveillance boobee lan moo tax moom dong ci politicien la ñuy surveiller ci mi L'Obs naan attention ci réew waxati ko la amoon 2011 boo moytul lu ko raw am ci réew mi ndax nag opposition bu gën a radical la ñu am saa si tembe ku jegi ci wàllu politique gi tàng na lool waxtu wu ne nag lu ne mën naa judd ci réew mi réew mi ko dajee naan waxtu wa nga xam ne kilifa diine yi ci boppam la ñuy attaqué ci réew mi bëgg jël tarixa daal di koy seeyal ci réew mi ña nga xam ne ñoom lañ dippe ay institution morale ñu bëgg leen faagaagal génnee leen ci réew mi réew mi ko dajee naan lii buñ ko defee ci réew mi fu Sénégal di mujjee direct ni du laaj fu Ousmane Sonko mujjee ndax coow lii Ousmane Sonko mën na caa génn ndax nag la mu tuumal Mame Mbaye Niang dañ ko caa yokkal diis ay laaj nag daal di samp ndax nag mën nañ sukkandikoo ci internet di tuumaal nit Ousmane Sonko yi lan lay risqué ndax ña ko tuumaloon Mame Mbaye Niang juróom benni weeru kaso ak sursis lañ ca jëlee sursis naan lu metti yàgg na ci réewum Sénégal xoolal ma coowal juróom benni policiers yi nga xam ne dañ leen lakkoon ñom policiers yooye ma nga amoon fukki fan ak juróom benn ci weeru février 1994 juróom benn ci policier lañ yoo xam ne ña nga nekkoon ci woto woto ba pan carburant policier yi téye seenu course benn ci policier faat nañ ko fi ak birig ca Petite Côte ba maître Abdoulaye Wade Landing Savané ñeneen ñu jàppoon leen ca bàyyi waat leen yéeni kaay bi nan maan laaj ba mooy kañ la ñuy tàqalikoo ak coono yi ci réew mi libération yéeni kaay naan maan waxtu waw sëriñ Assane Mbacke ma nga ca kaso ba Xaadim Njaay ma doon séddale xeer wa te bañ ko laajee mu ne ci benn policier la doon fa it ma nga fa le soleil yéeni kaay naan maan réew mi ci lu mu nekk saa si tembe day te xamu ko mooy cancer yi nga xam ne mi ngi faagaagal tànk yi téeméer boo jël ci cancer bi benn bi ci tout tànk yi la jëm diggante juróom-ñetti téeméer ak junni ak téeméer ci cas at mu yàlla sàkk des na ko am ci réew mi nguur gi saa si tembe ñi ngi sàkku nag mu taxaw tu tànk yi taxaw seeni waajur ci paju te duñ fay dërëm ci réew mi ndax nag cancer tu tànk yaa ngi leen di jeexal fa yàllaahu turbine mel ni ku naan maan dossier kenn dooy day jeex na kenn faatu na daal dinañ koy joxi primam yéen kaay bi naan maan yaa ngi xooba jatara ginnaaw ba mu jaale jee kenn doy jébbal na ko benn million daal di koy jébbalit ay primam 2007 ba suñu jonn yàllay tey source a naan ko déet ndànk moom kenn ci boppam ay ayu bés laataa moo faatu dem ca ministère des sports ngir ñu fay ko yéenekaay bi ne ma dañu ko faa dàqee dàq bu ñaaw dëgg la Yankhoba Diattara dem na jaara jaarajëk délégation waaye benn million la fa bàyyi ak i digée yéenekaay bi naan man kenn faatu na sàkku ñu fay ko ay primam ba faatoog moom sàkkoo nit ay ndimbal ci nguur gi ci Sénégal ga mu daan dawal ba faatu yéenekaay bi mel ni ku naan man fii la Sénégal toll tribune yéenekaay naan koon ak feneen kay déglul ma nettali la la am ca Sacré-Cœur benn agresseur moo yoroon paak fas yéene songu benn xale bu jigéen xale bu jigéen bi defi pexe ba jël paaka bi ci agresseur bi agresseur bi ci boppam gannaaw bañ koy rawale ci l'hôpital ci la agresseur bi faatoo ci buntu ba lii nag la wolof naan da kub dóore fayoo ko tas ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoo jàmm